tey moom lu fi xew ñëpp ko gis préfet Alioune Badara Samb moo ànd ak maire Ousmane Ndoye ñëw amul sommation amul dara ñëw dajji sunuy cantine jël bagage yi sànni ci biti toj sunuy place loolu daal la fi am. place ju ñu ngi ko jëndoon cent deux millions léegi nag ñu ñëw démb téléphoné Bada na ko maanaam suba bu ngeen génn daañu daane place amuñu benn kayit bu ñu jox. te ñun kayitu bee lañ yore yor ñu kayitu see léegi nag nit ki boo ko dee lenn boo koy génne xar sax doo war a ko génne noonu wax ma doomu aadama koo xam ne citoyen comme yow jënd place am ay millions nekk lu près de 27 ans am na ci xale yoo xam seen papa am na ci ëpp 50 ans ci marché bi man mi wax am naa def ci marché bi lépp 40 ans parce que 66 ba léegi maa ngi à Dakar te marché Gueule-Tapée bi laa doon yëngoo ba yàlla dugal ma li ma amoon bi ma dama sama kattan di bëgg a néew ma mën naa ko réaliser Sénégal jënd fa ñaari place benn place bi ci des Mbaye Ndiaye moo ko njëkk a jaay Mbaye Ndiaye dala gën a mat moo ma a jaay place bi ma ci turu àll Abdoulaye Diop beneen place bi des asuba moo ko jaay ci ñu ànd dem def sama mutation ma yore samay kayit kon bu njëkk dañ ne woon maanaam ajjuma bu ngeen génnul sam daañu daane place yi ñu réaliser boobu ba léegi mënuñu koo daane ñu def ñu def maanaam un an yu tagal léegi mënuñu dara barki démb cinquante neuf bi lañ fi indi ne da ngeen di génn yi ñu jom jëmlanteeg ñoom jàpparloog ñoom ñu xam ne ñoom néewuñ ci dëgg ñu daw res génn ci loolu bi ñu demee nag ba xam ne maanaam force ordre yi ma nekk muy policiers yi noonu citoyen citoyen comme ñëpp xam nañu police mooy suñ kaaraange ñu andi leen bi ci kaw projet boo xam ne projet sàcc la ñu ñëw daan ñu doole ne da ngeen di génn par force ñu ngi ni suñ place bu koy dajji ñoo ko dajji suba ñoo ko dañoo génn marché bi pendant di presque 300 mètres yoo xam da ngeen du ngeen jógee marché bi dajji suñu place yàq génn suñu marchandise xaalis bi ñu bàyyoon ci marché bi ñu bàyyi ci place yi ñu jalaale ko ne dañ leen di aar seen place man leen aar luñ seen bopp yéen li rey ngeen ñu rey moo ñu ko gënal te nee naa bu fekkoon ne d'accord nga ànd ci man ginnaaw Sëriñ Bamba na ngeen bari bi waaye nag teguwuñ xam ni nga koy réaliser ay doomi Sénégal nit ki nag respect boo ko joxee xamu respect ba nga koy jox ba mu la jox da nga koy nangu téye ko bu la reyee yow ci dëgg nga nekk nga dem àjjana boo ko reyee mu dem sawara kon nee naa xale suba bu la rikkalee dara nañ def parenté ak ñoom reyante ak ñoom lu ñu am jël. la ñu waxante woon ak ñun mooy comme ñun parti bi ñu waroon a toj bokkuñu ci nañ discuter ak yéen wutal leen site de recasement. ñu wutee de recasement. Euh, loolu lañ jubóowoon si de recasement ak dédommagement manque à gagner si de recasement bi nag ñoom dañ ne kaw canal bi lañ ñu ne leen ñun kaw canal bi su beesoon sax duñ nangu mu doon sit oh, ñu fay tegi cantine waxumal nag mooy canal bu màggat boo xam ne si euh, jaar fa sax wóorul loolu lañ tënkoon ñun ci préparation préparation site bu ñu yóbbu ak dédommagement bi ci lañ nekkoon ak ñoom ñu ñëw ànd ay policier dajji place yi génne marchandise yi sànni. amul sommation amul dara moom kay dañoo ñëw jaay doole rek te li ci gën a metti nag ab étranger lañ jaay marché bi parce que ñoom waxoon nañ ko bañ tojee parti bële étranger bi nee na euh, ñag bi dafa wax carrément ne moom marché bi yëpp la waxanteeg gars yi te marché bi yëpp lay récupérer. du ñu reculer benn yoon yàq nañ suñu bagage daal nañ suñu place ci zéro te man 27 ans ma jëlee sama place ak léegi ëpp na ko. dara fi daañu topp lu ñu am jël joxuñu ñu dara joxuñu fenn fu ñu mën dugal suñu bagage tabaski yaa ngi ñuy kenn ku ne de famille nga war a am du wër sa njaboot war a jënd xam tabaski place koy daana ko ni yàq fan nga jël loo jënd tabaski commissaire quatrième ma ngi taxaw keroog ma lii procès sàcc la ndax bu doon procès état maa ma ne ko Macky Sall du doxale ni bu doon état day ñëw kenn ku ne waxtaan yow teg la ci conditions yu wër bind jox la nga dem sa yoon bu place bi yeggee nga ñëw dikkaat sa place maa ma ne kooku du benn problème waaye procès sàcc la moo tax ñu indi fi cinquante neuf cinquante neuf yooyu ba ñëwee mu ñëwee laa ko laa ko expliqué nii comme ni ma expliqué ñu taxaw wax wax ko nii ak waa waa central ba loola jàllee ñu wëlbati ko préfet moo ci ànd ci ñu corrompu leen ñu wëlbatiku andil ñu mbooloo mi ci subaak léegi li fi nekk ëpp na cent policier quelque ak chemi ñu constaté koñ bépp ne kenn du dugg daandu suñu place noonu cent mètres quelque kooku nun nañ parce que li ñu def li ñu naan choléra bi choléra bi nun ñu def moo ëpp choléra bi te naan li mën di sa sóoréel ba dee ndax ay millions nga di ko réussir xamoo ñaata at ba nga ko commencé ak léegi ñu koy koy benn bis daale ko ne jàllale ko ci kaw tëli ba ne kooku nañ la bagage euh, waaw jël nañ UG mu constaté ko rek après nag ñun leneen luñ ci am rek baax na mais jël na UG bi ñëw na ba constaté bagage yëpp léegi leneen li ci des danañ ko topp rek luñ ci am jël mais li ci am solo mooy e, ñun ay sénégale yuy liggéey lañ liggéey yor suñu alal ëpp na 30 ans bañ tàmbalee liggéey ñu ñëw yàq ko ci benn bis e, pour favoriser benn ñàkk loolu nag su dee Sénégal foofu la toll kon sa sa boo ah, marché Colobane gi bu ñu ko tabax par étape dañ ko tabaxee dégg ko fa benn coow. mat nag ba tàpp nag ñu jaar ci kaw sàcc ko ba borom projet bi leen teg di leen sa terrain laa soxla soxla ma la terrain la soxla terrain boobu soxla nag moom teg leen bil parce que koromp leen ñu lekk xaalisam mu leen dalaa sama terre da ngeen ma ko jox ma dem ak yéen yoon te xam ne bu ñu doon dem tribunal ñoom kon affaire bi jaante doole la yow Macky Sall nag ñu ngi lay waxal loolu say doomi Sénégal doo ni nga nekk président ah fi ñu ko nekk président jóge fi Abdoulaye Abdoulaye Abdou Diouf nekk président jóge fi Abdoulaye nekk président te Macky Sall itam da nga fi jóge kon nag dañoo bëgg sa état parce que Macky Sall bu koy doxal lépp Ousmane Ndoye la lépp Ousmane Ndoye mooy triage bi Ousmane Ndoye li mu def moo ko def waaw. moo ko def kenn ma dégg Babacar Diop naan dañoo bëgg a defar fii ay piscine ak ay terrain daal man ko man def naa France def naa Italie man ay réew la def France ak Italie amul foofu match bu am day am terrain football am ay piscine te def naa France hôpital def Espagne kon man ba ma déggee wax bi ay réew la ma def lépp nag mu jéem a nax jullu gol tapé naan ay seen lañ ñu solal li ñuy liggéey nagam nagam réew absolument gis nga projet bu jàllee dootoo dégg ma soog a tapé man maa la ko mën Ibrahima bu li jàllee projet sàcc la bu jàllee dootoo dégg ma soog a tapé te danga ne lii nag Ibrahima nga waxoon na ko c'est seen paraba wax musulama sàcc la trial la sàcc la trial la parce que bu fekkoon ne état la du jaar nii sàcc la trial la waaw moo gën a teel ñëpp parce que bu jaaroon ci yoon du doxal nii mu doxale te it maanaam li lii mu fendi moo ko may mais bu doon nit ñoom fëndiwoon rek wala moomu taxaw dañuy jàmmante ak moom ba ñëw ba tëdd waaw parce que sàcc ànd ak moom kon ñu ànd ak ñoom kañ moom préfet ànd moom ka kañ léegi nun nun suñ doole amatuñu wér waay amatuñu wér waay Yo, yo.